صمم وعين وحين وشياطين وظالم ومنافق وزيحة حاسد ومن تفسق يا رحمن نجيني من النصارى ومن خفوا طريقهم يا الله يا حي يا من قال ادعوني إني دعوتك ذا خوف فقوز بيدي يا جاعل الحالي بين الكاف والنون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokki teddu sel li sell ñuy bàyyi xel di ñu sétan ci maktum productif yi ci kàddu gi seen xarit seen soppe mam Cheikh Ahmed Tijani Diop sukuna samay betiom talal ko samay loxo xol sama sang laa di ziyaara سيدي ومولاي حبيبي الشيخ السيد الشيخ محمد المصطفى سي المكتوم حفظه الله وأيده ورعاه نوي أك زيار أك نيانال نوتر كابيتان مولاي مام شيخ أحمد تيجاني كالعادة مقي مين جد مكتوم برود مي دوجو سي غوخ غوخان يي اي انترفيو tey nag ñu ñëw fii ci benn dëkk bu ñuy wax Mbersiane bokk ci commune bu Pambal soriwul ak Tivaouane ñu ñëw fii fekk fi sunu ay mbokki pas-pas sunu ñëw nag mi ngi jaaree ci sunu mbokk mi di sunu xarit sunu soppe sunu mbokkum pas-pas di Cheikh Tijani euh, Tine ñu fas yéene rek incha allah mbokk yi woy juróom incha allahu taala di sunu yaay mère Aram Dione ñu fas yéene waxtaan ak moom ci digganteem ak Tiwaawoon digganteem ak sunu maam soxna Safiyatu Dem bi muy nekk Tiwaawoon ci maam soxna Safiyatu Dem digganteem ak maam Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum ba ci gor gu tedd gi Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy Al Maktoum xafidahullahu ayyadahu raahu nee na dinañu wax ba wax ci Serigne Babacar Sy keroog bi mu génnee àdduna ak bi tabax ji mbokk yi bu ngeen ñu ci interview bi nga xamante ni moom amal fii ci Mbersiane lépp incha allah njëriñ rek lay daal kon mbokk yi di ngeen am interview bi spécial fii ci mbir siyaan ñu àndandoo dugg ci biir kër gi fekk fii ay boy waxtaan ak moom ci lépp loo xamante ni yéen koy xaar ci ñun tey ci interview bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu dugg ci biir kër gi incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu seetaan ci Maktoum Prod ñu ngi leen di nuyu. di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm sutura ak tawfiq di ñaan yàlla sunu kàddu fekk leen ci jàmm Maktoum produ nag comme ni mu ko baaxoo di ko defee tey mu am ci benn dëkk boo xam ne ñëw na fi du ma leen wax dëkk bi ci biir waxtaan bi di ngeen xam dëkk bi ñu ñëw ban dëkk la ñoo ngi ak sunu yaay maire aram Dione incha allah tey ñu fas waxtaan ak moom ci ay tomb yu yaatu dama koy bàyyi yaay booy nga nuyoo ak ñi lay seetaan ci àdduna bi yëpp soo paree nag ma soog a am ay laaj yu ma la laaj nga tontu ma ñu waxtaan ci man ak yow allah mën nga nuyu ak ñi lay seetaan. salaamaaleykum damay seetaan nit ma maa leen di nuyu. jërëjëf euh, xam naa ne yaay booy tey fas yéene ñu yéene waxtaan ak moom ci lu bare bari euh, bokk na ci sunu waxtaan ak yow yaay ñu bëggoon la laaj sa diggante ak waa kër maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al sa diggante ak soxna sovietu dem ndax dégg nañ daal sa relation ak ñoom ndax mën nga ñu fàttali lii la boole ak ñoom. sama yaay daal mooy daanaka mooy fondement bi. sama yaay jamono yooyu boobu mi ngi kër Mariam Sidi léegi boobu Serigne Serigne Safi mi ngi am doom ci Serigne Mustapha Serigne Serigne Mansour taawam sama yaay nekk kër Mariam Sidi dafa bàcc ceeb léegi Safi dem bëgg ko ko bàccal laltaay soxna Safi mu yónnee xaw ma Safi ja booba jamono booba Safi ja la yor ak Njaay Njaane Jaañ Garden Bay ma fekk leen ci xale yi léegi mu yónni benn xale ne ko wal ma séeréer benn séeréer kër sa soxna ma rek def mu yem ci sama yaay boo mu ngi boot man soo doon liir sama yaay ñëw yàlla def sama yaay daa setoon mën a rafet wax dëgg yàlla du du du naw ko de lu am la léegi mu ñëw bàccal ko ma aw yoon su fay ba ma masaan a yendu dafa dem wutal ko booba jëlagul njël mu wutal ko añ ma añ foofu ma dellu ci séeréer si ba sëñ ma dem si ñu eggal seen liggéey ñibbi booba dañ fa daan bàccal ceeb dañ ko daan bàccal ceeb léegi ñu jàppante noonu ñu jàppante noonu jàppante noonu ba mu war a jël mu jël njël ci ci umu xayir si ak seen bu si foofu la daan añee waaye sama yaay da ko daan wutal añ léegi ñu nekk noonu ñu nekk noonu ba mu jël njël ñu ma jox sama yaay sama yaay ñu natt njël jox ko booba booba mbaar maa nga kër kii seen bu si mbaar xar soo déggee mbaar xar waa ñu saf na safi de mbaar xar la jëkkee léegi ñu génne xar ya ma def ko waañ léegi ñu tuddee waañ ba mbaar xar bee mam fekkuma fa sa waañ mbaar xar fa laa ba ma fa laa ko bàyyi léegi foofa xaw a xat ñu soog a teera teera teera bii deret bi moom fekkuma fa waaye fekk na fekkee naa mbaara xar moom mosaana ayee ma fegalee bu ma bu ma ayee bu ma bu ñu tibbee rek par may baraase courant fa courant paase piisi may soxna sëriñ Seex yi muy fataanoo maa ko daan paase baraase courant paase ba may gamintu booba boo mosaana boo bëggee sangu dangay dem kër Yakuba Balla war na koo dégg xam booba ko ne yaay wut fooy sango paan booy roote yaay wu abbe paan man mii na jënd na paan jox ma ndax booba maay ndox ma ne ndox amul ndox ma ne man mu jënd paan jox ma man ma yow mi dem marché boo xëyee roote ndox mu ne ma jënd paan jox la boo pare danga ko dénkaan waaye ñoom gaa dem bay ñépp ak ñoom ñi ci dis ñëpp ku bëgg liggéey ci paan bi yaa ko yaa ko wut yaay abbe waaye man jënd na paan teg ko ci sama a boobu may rooti ndox mu neex boobu Tivaouane amul ndox mu neex amul robinet amul dara ah may dem marché itam comme marché baa nga botowaar soo mosaan a dem marché buntu Malick Thiombane du dégg Malick Thiombane mu Daaru Alpha boobu taalibe la comme man dama daan romb buntu néegam nii léegi ñu nekk noonu nekk noonu nekk noonu ba mu jël njël sama yaay bu nattee njël la mu jox ko mu yóbbu indi ko fii mu sokk ko wal maam Basi ak maam Saasa ñoo ko daan mooñal ki meer bu tudd maam Basi ak meer bu tudd maam Saasa ñoo ko daan mooñal mais ko mooñal di ko mooñal di ko mooñal ba yàgg sama yaay indi njëlle teg ko mën ko kóor mën ko naam mën ko ko te nga essayé mooñ ba xam bu awee yoon ma noppale ko ci santaane sama yaay mooñ cere ji gën a neex mën ko kóor ndekkite li may li may li ñoom ñoom maam lañ may weer ci sama sama sunguf si yëpp mën nga mooñ ndax bu bu ma saan a jox maam Saasa ak maam Basi sunguf si foofu lañ koy teg ba mos di leen soññe ba yàgg ba ñu wooñal ko jox ko waaye sama yaay bis bi mu commencé mooñ togg moo daan togg cere jiitam ñoom ñoo dañ daan mooñ dong waaye sama yaay moo daan togg moo daan wal moo daan indi moo daan togg ba yàgg mu jàng mooñ mooñ ñu continue ci loolu. xale yi soo tafi de soxna tafi dem xale mu am yëpp man maa leen pot. asiya dama daan wax du du ma sa sama dal sama yaay kan yaa ma bootoon ba ma jàngal ko séeréer man ko awu ah. a bu ma ko bootee man ko asiya neel awu ah. a mu ne awu a ah. soxna ma ram joon na dangay jàngal sama doom ci séeréer man ko sama ko yoree kay jaa ko jàngal bu jooyee man ko neel awu a mu ne awu a man ma man ko wa man ma wa awu a man ko noppil noppil waaw sëñ Moustapha noonu sóora dong laa fekkul juddoo waaye ñu ci def ci sama kanam lañ juddu maa leen boot man man mii man mii ndax séeréer boot rek la xam bu ma koy jox rek ma boot waaw hmm? sama kanam la même sëñ Moustapha bi ma nekkee Saamel dem naa fa léegi garde sama xale bi ma àndaloon garde garde ba garde keroog xamu ko man ma sama yaay nan ñibbi ndax garde bi fi ko ni ñibbi ci ci tëj biñ ñu ko tëjee sa amet keroog jooy na jooy yu métti sax ndax miir bi laa seet ñenn mi ci biir man ne ah sama rakk tey am na lu ma nakkare de. Hmm. laaxe ma ku wax ko yaayam. Hmm. ma dem dem ci yaayam man ko ah, man de dem na saa metti ci ci sëñ Moustapha. Hmm. waaye dugg ma nag. waaye gis naa dugg ma taxaw naa ci buntu bi nii. man ma sëñ Moustapha fa ma nekk boo ko fekkee woon foofu ak ak bëgg a néegam yi hmm. kon du la métti ndax defuñu ko dara day hmm. toog rek waxtaan ak ay talibé lu mu soxla fekk mu fekk ko fa hmm. ah yëpp fii yëpp jaar naa fi ak moom waaw lu nekk sama yaay nekk ak moom noonu sama yaay nekk ak moom noonu ba yàgg atum lakkoob te waawoon lañ ma fa joxee atum lakkoob te waawoon sama yaay yëkkati ma jox ma jox ko ne ko ah comme dama daan ànd ak moom bu liggéeyee ba ngoon buy ñibbi ni ñibbi ni bagante noonu ba yàgg sama yaay la ma faral toog man ko jox naa ko man ko kon dee mu baax ñi ma fa ña xam ne fa lañ ma fekk xadis mbaay tafi ja yaa njaaja jaañ ñi ci des ñëpp foofu lañ ma fekk yàlla xam na ko nekk noonu ba ba ma ñibbi at moom laa dem Dakar ma ñëw Dakar ñu ñu ñu ma ma sëyi waaw ñu ma sëyi waaye teewul ma taxul ma bàyyi ko. Mm-hmm. ba ba muy bëgg a dem sax danoo tàggatoo. ndax dama wooloo ma ma ñëw mën ma aram jonte de kay wuyu ma booba tànkam yi mooy métte. man ma dama bëgg nga wutal ma soowum bëy. Mm. man ko man nga koo am man ko waaw. nii na jàkkaarloog yoo noonu la jàkkaarloog. Saalum Saalum Saalum ñu toog foofu. ñu waxee ñaari ba téléphone bi sonn ñu teg léegi man ko man kay mën naa am sama mbéy mën naa la ko am bu ma ko amul si fu mu mën a nekk dinaa ko wuti jox wut la ko ma dem fi kër Ñoxor tantaane ko fa ba ñun ma bu suba nga ñëw jël ci ko ba jël ci ko daanaka kii moo ma yee ci fajar te boobu damaa naroon a yóbbu soow mi moo ma yee ci fajar mën ma soxna sa fi de wàcc liggéey daanoon na ñetti yoon ma jóg ngeen di laaj ko. damaa dox ba Tiwaaw dugguma saret dugguma oto bi ñu koy sanga itam noo yóbbu soxna Kiné ba ci margo bi noo ko yóbbu ba ci margo bi ñu taxaw mag magam ji nekk Dakar maam Fatou kooku jë doomam mooy sama sama jëkkëri doom Binta Faye ñu sanga ba pare yóbbu ko ñu indiwaat Kiné kër gi yooyu yëpp maa ngi jooy dama jooy soxna si tafi dem duma ko jooy sama dom sama du fekkoon duma ko jooy loolu ba fii ñu koy waxee nii heure bu ma ga sama rongoñ dàkka suuf tax da sama harit. même guru bu ñu mosaan añ ba pare sax gure gi muy gi ñuy yëy soofa man man lay yónni kër ci Pam Malick Lo mu jox ko ñaar fukk mu jox ma ñaar fukk ne ma ne Lo na la gura ma dem Pam malik Lo fet doom yo xam ne xamul la parce que ci këyit jox ma ne ma yóbbu ko. moo ma jàngal yooyu nguura ba fii ñu koy waxee damay jënd di yëy. Hmm. su ñëwee ma xar ne jonde ndax di nga yëy man ko ah bañ a yëy ma barkeelu ci kay. may jàng noonu ba fii ñu koy waxee ma xëy mu jënd du jënd gura waaw. Eh, jërëjëf sa diggante ak soxna Sophie lan nga ñu mën a fàttali ci soxna Sophie ci ay jikko yoo xam ne marqué woon na la lool ci moom. soo sa sa sama diggante hmm. ak ya. hmm. hmm. man mom, man ak mom mu bëgg ma lool parce que Serigne Babacar Sy ma doyon ko lool lu mu soxla yónni man lay yónni da séeréer amul politique amul lahas lahas, day dem ñëw même yónneen sax man la yónnee même bi muy bëgg a maire yi mu nekkaloon yëpp ñu dem ñoom yooy nduur ak ñoom ñëpp bëgg a néegam ñu jigéen ñi mag ñi ñëpp dañoo dee dañoo dañoo wàcc liggéey yónnee na ma ñëw aram aram ke mu yónni woon mi ngi fi yindaan aram ten ko boo demee daal aram jooma ne ma ñëw wuyu mu ñëw mun na man de damaa bëggoon soo xëyee nga ñëw ndax maire yi ma fi nekk loolu de wàcce nañu liggéey léegi omo ko may yónni nga ñëw nga ñëw fii ma di la yónni waaye lu ñu wax nga ne sa sa sët yi xanaa sa ko indi wan ma ko man ko a ah, sët yi kat wan ma ko indi elew lañu waaye sama diggante ak yow xam naa bés doo ma gëj a gis ba bi ñuy tàggoo cere laa ko tayal ma def ko ci leket gu rafet yot ko ko man ma cere ji de ak leket gi yëpp maa yi moom tey ma wàcc koog cere ji ak leket ga lekk cere ju rafet ju set wécc ndax man cere rek la man kaar ya kaar kaar sama macha allah wàcc ko lekk cegeet keroog def na saraxu mburu mu dindi ci mburu mi jox ma lu mat ñeent ëpp juróomi mburu sa mu fab leket gi def ci soble ba mu fees jox ma man ko ma de du ma yendu man boo yenduwul doo añ fii doo añ fee tee ngaa toog ba añ ñibbi man ko ayta man delloo ma xarit naa ko jéem a def ndax du ma wàññi dara benn bëccëg yàqul dara tàggoo foofu man la muy wàcce liggéey sax bi muy bëgg a tikki sax wóolu na ma ñëw aram mi ma la wax moo ma woo man ma ne wuyu soxna Safi ma dem mu ne ma bo ma am ñaari fan ñetteel ba ma soog a dem ma dem mu man de bëy laa la bëggoon a may bëy wi dee fee aram na ma wax na dëgg bëyu fii la nekkoon bëyu tuuti yooyu bëyu Casamance yooyu man ma bëy wi dee xam nga oo ma soxla ci bëy mayee naa ko man ko sama du sama saas yàlla xam na ko nii man ko benn beneen yoon ndax yàlla da lu jeexul lu jiwa jeexul jógu fa dëgg la waaw man ko lu jiwa jeexul jógu fa ya nga fi maa nga fi mm-hmm. Mm-hmm. su déggee sama baat ci palanteer bi mm-hmm. mo de garde ñu bàyyi ko mu ñëw est-ce que. xalifa am na ko. dëgg la. kenn ni mu ma woon a téye pour ma dem ci moom. macha allah bu ma soxlee. jërëjëf bu ma ko dee nuyu ji itam. Hmm. bu ma amee soxla ci moom garde ñi bu taxawee ci buntu bi. Hmm. bu ma nekkoon ko mu ubbi. Hmm. ma doo mën a dem. man ko abal man man man tam du ma waranteeg moom. jërëjëf waaye bu déggee sama baat rek ne ko bàyyi ko mu ñëw. waaw macha allah bàyyi mu ñëw. jërëjëf xam naa ñu bëggoon nga ñëw nag eh, ci Serigne Moustapha si Al Maktoum. lan nga ñu mën wax ci moom li nga fàttaliku. sëñ sëñ Moustapha di xanaa baax dong. Mhm. képp. Mhm. ak bëgg bëgg lu baax. Mhm. loolu mën naa koo seede ci moom te maa ko yar it maa ko boot maa ko yar. xam naa ci ma am ci koo bu ma ko waxee fii la ñu yéen. booba ñetti moor sama ngi soog a xew. ma sogal ma solal ko yére yóbbu ko si Seynabou ñëpp moo leen yoroon Seyna bu si moo yoroon Asiya mm. moo yoroon soxna Moustapha foofu lañ daan yendu mm. léegi bu bu jiitoo ma toppati booba ñett moo sama ngi seex te mënu koo woggante mm. su laalee suuf ma aram joone da ngay bàyyi sama sama sama sama sama bu mu takka suuf ko déedéet di seede yëkkati ko ngàmba ko nii ma toppati waaye sëñ Moustapha sama xel ci activité bi ma xam ne bu kii bu dundee dara lay doon yàlla xalifa xam na ko ma la wax lu am la te du démb it de du démb de da papa xalifa dund na ñeenti at bés bi mu wàccee liggéey bésu keroog amatul te waawoon papa xalifa mooy Serigne Babacar si waaw mooy Serigne Babacar mhm. mu wàccee liggéey fiirit lan toggoon ndéki fiirit mhm. xëy na ni ma ma ma ma bu ñu mosaan a toggoon ndéki fiirit tegalee soos bi ak fiiril bi teg fale ba bët setee dañu ngi tàngal soxla rek man may dem marché ci fajar rek ñu papa Xalifa de bàyyi na ko bàyyi ko na fi boobu ak ñeex ak soxla ba yëpp dañ koo tuur bisub keroog dootul dootul am tuwaawoon defe naa yëpp sama kanam la ko magum jëmb la ah sama xel sama astukan sama ko daan yor reer am daawul lekk xorom bu ma yóbboo reer bi bu ame yomb man ma aram joon man ma naan man ko bu am la yomb man ko waaw mun ma jox ma ci benn benn xar ma di yëkkati ko nii ci sama loxo teg ko ci loxoom hmm. waaye li ci des moom du ko lekk ndax du lekk xorom hmm. laax la daan ndékkee laax bi bu wàccee ko ci yem sax doo ndékki seen kër hmm. mukk moo doon bëgg a déggam xale bi tudd Fatou Ndiaye booba Fatou Ndiaye jànka la jabar ca Abdou Aziz ay dakan ñoom ñëpp booba ko nekk ay xale la ni comme man ñoom yeele suwaare mhm. ñoom ñëpp noo bokk ay kalaas mhm. hmm? mhm. ñooñu ñëpp dafa fekk naa seen seen gone ndax bi muy takk ay dakan maa nga fa euh, léegi euh, sëriñ Moustapha wax nañ ne mës na ñëw ci benn dëkk bu ñuy wax fii xàkk ndax loolu yaa ngi koy fàttaliku bu baax sax booba sama yaay moo man déggoo ma ne oto bi tudd Jaasi oto bi tudd Jaasi oto kan la woon sëriñ Cheikh waaw oto bi tudd Jaasi bi mu njëkk a am mu daan ñëw te waawoon te bu ñëwee bu ne foof ñun ñëpp ñu génne di ko gàttandu mm. ba mu dugg néegam Jaasi mm. la tuddoon moo ko yóbbu woon xaq mm-hmm. mu ànd ak sama yaay mm. ñu dem xaq ñu def fa la ñu fay def ñu ñibbi si dem seen sama yaay bu fekkee ne day dem kër ga ñu doog wokk ci oto bi dem ñoom ñoom ñaar ñoo dem. Mm-hmm. ci oto bi. ak mm-hmm. ak sëñ mm-hmm. yooyu yëpp maa ngi koy fàttali ko te ma magam jëmm laa nag. waaw. dégg naa lu ma la wax lem. lu ma génnee ci sama gémmiñ gi di wax la ko rek dëgg la. macha allah lu ma fekkee la lu am la it. dégg naa Serigne Moustapha ñëw na fii ci dëkk bii ñu nekk di mbir Mbersiyaan 1989 ndax bés boobu yaa ngi koy fàttali ko ak ni mu ah, demee ah, woon. man ko naa bu ko bu wér a wér a wér a fii la nekkoon. ci ci la buntu kër gi tante bi fii la nekkoon wax dafa waxtaan bu am solo mm-hmm. waxtaan wa gàtt na waaye am na solo lu mm-hmm. bari ñu ngi koy fàttali ko mm-hmm. am na ñoo xam ne ci dëkk bi ay murit lañu waaye ci lañ ko jàppee ba tey yàlla xam na ko ndax dëgg moom kenn moomu ko ñëpp ko ku dégg ku dégg dëgg xam nga lii dëgg la boo dee murit wala ngay tiijaan yëpp dëgg kenn moomu ko te wax na fi wax yu am solo yàggul na waxtaan wa nag yàggul booba dafa am fa muy dem ci boor am na booba fa muy dem moo tax yàggul daal di dem ay sëñ Moustapha lii lépp li ma la wax lépp xam naa ko ci moom mënoo nit juddu ci sa kanam nga boot ko mm-hmm. di ko boot di ko boot di ko sangat di ko defal lépp ba muy magum jëmm ci sa kanam déggoo man la papa Xalifa muy wàcc liggéey mm-hmm. boo maa nga fa mm-hmm. boobu dund na nu ñeenti at bu musaana dem bu musaana aaye Njaasaan nu topp ci ba mu dugg ba mu yéeg ni ñibbisi bu bàyyee koo Njaasaan nu gàttandi ko topp ci ba mu yéeg mu mm-hmm. ñaanal la ku mm-hmm. nekk talal sa loxo mu ñaanal la mm-hmm. boo eggee Njaasaan mu ñaanal la boo bu bu ayee Kaolack am nga boobu kër Sama Astu Kan Kaolack la dund kër Mariam Sidi mi bàyyi ko Njaasaan ñu ni Njaasaan ni Kaolack ki bàyyi ko Kaolack ñu ni Kaolack ki bàyyi ko Njaasaan ñu ni Njaasaan kër yaa maam Mariam Sidi xaw ma ngi dundam déet sama fàtte lool man fàtte naa ko laaj ah waaw ne sëñ Moustapha la ma ca xam yëpp. lu baax dong laa xam ci moom. ak ra ak ak ak ak bëgg a faj. loolu de moom xam naa ko ci moom moom kenn mësul bëgg bëggul kenn yab ko moom. wallaay bëggul kenn yab ko moom. lu ne lu nee na nee na moo xam naa wax ne bu ngeen ko de bu ngeen ko na te joti tëj leen ma. man man mat naa tabaski mat naa tam xarit. allahu akbar tëj leen ma. waaw ci sam papa kenn dootu ko tëj. ci loolu laa ci loolu laa bëggoon ñëw ak yow ci euh, Serigne ndax yaa ngi fàttaliku euh, li ñuy wax voilà la bu fa balu Serigne Cheikh yi ci Tiwaawoon ndax yaa ngi fàttaliku loolu ak bés boobu nan la demee woon bu dee fekkee nga ko. xam nga bés bi fekkee ma ko sama yaay ko fekk. Mhm. sama moo ko fekkee booba sama yaay déggoo man la sama yaay booba mooy wala njël li mooy fa la yendu ba ngoon mu ñibbi léegi Serigne nee na sama yaay nee na natt jox ma ma ma yenu bi ma génnee bunt boobu buntu boobu jëm jumaa ji nee na yàlla dafa tax ma génne noonu daaw ma génne noonu sa foofu la génne keroog léegi nee na ma ñu alkaati yi ñëw wàcc ca oto bi dal di laajte ñeen ko sëriñ si ñu ci biir ñu escorté escalier yooyu ci saal boobu saal fa papa xalifa bi ñu escorté foofu sama yaay nee na boobu maa ngi maa ngi maa maa ngi bëgg ñibbi te boobu guddi da daal dafa la daan yéen xam nga seen añ balaa ñoo añ tàkkusaan sama yaay ma ne mu génne yàlla def fii la daan génne ci tëgg yi waaye ko mu génne buntu boobu mu gis ñu escorte escorte yi taxaw ci oto bi wàcc yi laajte sëriñ Seex ñun ko mu ngi ci biir ñu foofu buntu bi bi ñu escorte buntu bi sama yaay ne ah sëriñ Seex lañ koy doyee alkati yi gendarme yi ñëw escorte buntu bi nii lii du doon jàmm te boobu xam ñu ngi ci bi léegi sama yaay dem ba kër sëriñ Mansour Diouf Serigne Mansour Diouf mi ngi dëkkoon fii ci bi mu teg moom booba ñoom fa fa jub sama yaay sax booba ñoom ay xarit lañu ñoom moom ñoom waa kër Serigne Mansour Diouf man fa jub de man sama jël fii laa koy teg ndax li ma gis kër ku mag il faut ma dellu nee na ma dellu ñun ñëpp ñu génn taxaw Serigne Cheikh mu ne la ngeen ma xaar foofu de dinaa génn de xaar leen ma foofu rek ñu xaar ñu taxaw ñu taxaw ñu taxaw ñun ñëpp ñu taxaw ñu xam ne lii di jàmm ñu taxaw ba Serigne Cheikh ne buntu bi ka cit génn ma teg benn escalier ñaari escalier ñetteel bi ñu tiiri ko ba mu leen dem ko riis loxo xam nga fa loxo daggee booba jàmm nekku fa ci ko waral loolu dara dara jotu ko hmm? loolu moom am na moom. ak ak Mbaye Diop benn loxo Mbaye Diop Mbaye Diop da daan jaay gura loxoom ba farote falarote ak Maurice Sarr Maurice Sarr la woon waaw yooyu yëpp ci sama kanam la Maurice Sarr am naa ko bu baax noo dëkkoon noo doon ay seen atelier ministre ci defar wata ci mécanicien seen atelier bi mu ngi foofu ba tey defe naa fa nekkoon waaw loxoom ba ci la daggee loxo loxo loxo Mbaye Diop benn loxo ku ne dégg na Mbaye Diop benn loxo booba gure lay jaay moom loxo ba wér na sax teewul muy bàyyee jaay gure fii la ko daan teg dagg daggit bi fu ko tegee fii ku bëgg a jaay gure mu jaay la waaw te booba ma na ba dellu ci liggéey yëpp hmm? yii yëpp moom naa ko moom bilaay macha allah xam naa ne loolu ay ay ay fàttaliku la yoo xamante ni dafay am solo lool macha allah eh, ci loolu wax nga ñu Serigne Babacar am na loo fekkee ci dundam wax nga ñu tamit ci Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ginnaaw bi fi Serigne Babacar si bàyyi ko jumaam ji biñ koy tabax ndax yaa ngi koy fàttaliku. déggoo man la jumaa ji. Mm-hmm. xam nga bisu papa Khalifa ba mu bàyyi ba mu wàccee la comme nee ñu defal Serigne Cheikh. Mm-hmm. xam nga dañ ko dañ ko gërye gërye nii ay seen man dem naa fa keroog yàlla ma dimbale rang baa ngi tool jot na te waawan ca ëllëg sa bi ko yóbbu ñu ko robee ba ca ëllëg sa rang bi kenn xamul nu mu toll ndax rob ba naroon naa dem sa waaye sama goro bee moo ma ne boo demee doo mën a dugg boo eggee marché rek doo dem ma bàyyi ba ca ëllëg sa ma ànd ak sama doom ji awa jóg mi man ko nañ dem siyaare ji ñu dem rang bi kenn xamul nu mu toll waaye yàlla moo ma dimbale ak sama liggéey ci ñoom benn gendarme moo ñëw ne ma kaay mais man ko ma si bëgg a siyaar man ma ko waaw man ma kaay ñu dem ubbi na buntu ma dugg dem siyaar waaye kii ma àndal sama doom ji man ko doo mën a dem da ngay range yaa mi ngi ni naa bu fenee moom ma fen yàggul waaw Serigne Cheikh moom sama yaay bu ko bu ma saana fóot booba buntu falante bi sama yaay foofu la daan teg sumb di fóot léegi léeg-léeg mu dégg sama yaay di fóot booba ñaar téeméer am na njëriñ de waaw mu def loxo càmmoñ bi nii génne ko ndànk xam nga ñoom bëgguñu ngistal mu lem ñaar téeméer it ba muy tuuti mën ko kooku kóor mën ko naan waaw man de fii dem mu teg dindi loxo bi ndànk teg ku ci jox ku ñaar téeméer yi chaque jour mu def ko boobu mu ngi waaw demul fenn ah lii ji man la ba papa Khalifa wàccee liggéey ba ñu denc ko foofu ba pare ñu giriyee ko giri ko for comme ni ñu defal sëriñ Cheikh ñu ne dañ koy def juma bi ñuy go fondement juma bi fekkee naa dëkk di dénk dénk dénk yi nga ko fondement ne bi ñu koy bi ci lan daan for boo aayee yor dem foofu for ko ba mu fees boobu matta amul ndox amul lu nga xam booba booba tubaab kër gu mag amul ndox amul mat da nga daan jukki soog a togg ñu fot ci diggante dénk yi ba jumaa ji taxaw ne ñu lekk ci ba fi ba ba nee ma sottee ne boo maa ngi nii di ko fekk nga loolu loolu du démb de ba ba xalifa wàccee liggéey fi mhm. waaw yaay booy ñu bëggoon nga ñëwal ñu ci sa njaboot gi nga xam ne ñoom lañ fekk ci kër gi sëriñ Babacar sëriñ Cheikh seen gën ak àdduna ak seen tur seen tur. Mhm. man la Serigne Cheikh mii bésu gàmmu umu xayri la judd fajar booba gàmmu ga demoon mu ñëw ba ci yoon wi tali mu judd foofu booba noo nga dëkk fale dëkkunu fi boo noo nga dëkk fale léegi ma dem ba ñu war ma ngénte booba jamono yooyu ñun sunu taaliba yi ko ci am doom da ngay laajte ji tur kër gu mag papaam dem ci Serigne Cheikh ne sama boro sama soxna de daa daa yeewee ko dama bëgg a tudd tur man ko ko fu mu la judd man ko bés gàmm umu xëy ci fajar la am la la judd boobu la judd man ko kon tur bi maa ko moom gàmm umu la judd rek maa moom tur bi ndax bés la demee woon xalifa mi bésu bis bi ñuy gungi weer ci fajal la judd bu ñu demee ba di ko bëgg a ngénte it papaam daa dem laajte ji tur ci sëriñ si laajte tur mën ko soo demee tuddee ko sëriñ Babacar si ndax bis bi mu juddoo daa màgg bis gungi weer ku ci liir bu ci juddu rek war nañ laa tuddee tur bu am solo kon nañ ko tuddee sëriñ Babacar mooy xalifa mii tey noonu la demee woon li may yóbbante ci sëñ Moustapha Sy njóogu faama ma gis ko ma teg ku bët loolu rek mooy sama soxla moom li ma ko yéene moom ma ngi ciy jot toujours ndax dama koy ñaanal sama ko ñaanal dama ko ñaanal dina ko dal waaye gis ko dang dong dong moom laa gën a bëgg moom moom la ñuy tàggatoo balaa maa dee bëgg naa balaa maa dee ndax mag la xam nga man léegi dootuma xale léegi sax mënatuma liggéey dara waaye ma pour ma gis ko rek su ma yónnee ma dugg oto dem fekki ko xam naa du néew ma ñëw sax waaye bu na ma bëgg naa koo gis dama naa koo gis mu ko bu may bu oto dem fekki ko këram loolu ba tey mën naa am mënul am waaw ba tey yaa ngi fi dund El Moustapha li ma yóbbante ci moom sama rakkal bëgg naa koo gis lool.